sëriñ Modou Khary Mbacké sëriñ Modou Khary Mbacké mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1874 ci dëkk bu ñuy wax nag Mbacké Jolofa nekk tim nag ci suuf sii nag di Jolofa maamam nag maam Maaram Mbacké nag moo ko sancoon ci dëkk boobu nag la feeñee jamono muy doomu soxna Jabu Jóob ak sëriñ Mbacké Mati am na nag ñu bokkal soxna Jabu Jóob nag ak sëriñ Mbacké Mati ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moor Jabu Mbacké ibnu soxna Jabu Jóob ibnu sëriñ Mbacké Mati Mbacké soxna Assu Mbacké bintu soxna Jabu Jóob sëriñ Mbacké Abdoulaye Mbacke ibnu soxna Jabu Jóob ibnu Sëriñ Mbacke Mati ñaar nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy ñett muy sëtum nag maam Maaram Mbacke moom Sëriñ Moodu Xari Mbacke doomu Sëriñ Mbacke Mati la Sëriñ Mbacke Mati doomu Sëriñ Ahmadu Xari Jóob Mbacke la Sëriñ Ahmadu Xari Jóob Mbacke doomu maam Maaram Mbacke la moom nag sëtub maam Maaram Mbacke la turandoo Sëriñ Ahmadu Xari Jóob Mbacke wi laataa nag ñuy xuus nag ci ay mbiram ñu wax nag njaboot gi mu bokkal nag waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan sëriñ moor jëbu mbàkke sëriñ tuubaa seexul xaddiim nag moo ko sàkk woon nag ci waajuram nag sëriñ mbàkke mati nag mu jébbal ko ko ginnaaw nag bu ko waajuram nag sëriñ mbàkke mati nag jébbalee doom ji nag di sëriñ moor jëbu mbàkke la ko jébbalaan nag maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru mu bokkoon itam nag ci jàmbaari maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru yi ba tax na nag foo tudde maam ceerno daa fa tudd nag sëriñ moor jëbu mbàkke mi farlu gum farlu woon nag ci ginnaaw maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru keroog bi mu génnee àdduna maam ceerno ko nag lu takkoo takku sàkku itam nag ci Cheikh Moussa Ka mu defal ko nag am marsiya ndax nag jëfam nag bañ a fay wala jëfam nag bañ a nëbbu seen jigéen boobu nag ñu bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen nag di soxna Astou Mbacké bi mu matee dem kër Serigne Alioune Niang bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon nag ci ginnaaw maam Thierno Ibrahima Faty Mbacké ndaamal daaru nag lañ ko joxoon ba tax na nag moog Serigne Alioune Niang nag am nañ nag ak njaboota am naa moom nag ku ñuy wax Serigne Makhtar Niang soxna Faty Niang ak soxna Awa sëriñ Alioune Niang càmmiñam lii nag ñu fas yéenee waxtaane tey jii nag di sëriñ Modou Khary Mbacké bi mu feeñee jamono waajuram nag waajuram nag la ko tuddee muy sëriñ Ahmadou Khary Mbacké moom itam nag magam sëriñ Mor Jëbu mbakke nag moo ko jëlee nag Mbacké Jolof indi ko nag jëbbal ko maam Cheikh na Ibrahima Faati mbakke ndaamal daaru booba nag ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xadiim mi ngi nag ci géej gi bi ko magam nag sëriñ moo Jëbu Mbacké di jëlee nag ci dëkk boobu nag di Mbacké Jolof di ko indi nag di ko jébbal maam Cheikh na Ibrahima Faati sëriñ mat mati nag génn àdduna bi mu ñëwee ci loxo loxoy maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru maam Thierno Ibrahima Faati nag moo ko jàngal nag alxuraanul karim moo ko jàngal itim nag xam-xam maam itim nag moo ko tarbiya ci dëkk bii nag ñu tuddee na xabbaan moo tax nag soo delloo nag ci mbindum Cheikh Moussa Ka mi ngi xamal ne nag sëriñ moo Modou Khary Mbacke borom daaru nag moo ko jàngal nag alxuraanul karim ci dëkk bii nag di daaru Marnaan mokk ñuy wax nag sëriñ ma bànji Njaay ñu teewlu nag li ci Cheikh Moussa Ka wax sëriñ ma bànji Njaay Serigne Modou Khari moo leen xamal sàkk na fuure yu bari mu wéy itam nag des nag ci loxoy maam Thierno Ibrahima ba ni Serigne Touba Seexul Xaddim nag jógee ci géej gi ba Serigne Touba Seexul Xaddim nag jógee ci géej gi fépp foo xam ne nii itam nag maam Thierno Ibrahima faati mbake ndaamal daaru nekk na fa Serigne Modou Khari Mbacke mi itam nag nekk na fa ak maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru ci mbooleem nag daara nag yu maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru nag taxawaloon moo xam Mbacke Kajoor ci ba ko fa sëriñ Touba Seexul Xaddim yabalee ci bi mu nekkee fii nag ci fet to ci daara jam fa amoon sëriñ Moodu Xari Mbàkke itim nag ca ña nekkoon nag ca daara ja xeex boobu amoon nag ci dëkk boobu nag di fettoo soo delloo nag ci mbind mi ci sëriñ Moussa Ka bind ci marché nag bi mu doon defal maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru Cheikh Moussa nag mag ñuy xamal ne ku ñuy wax nag sëriñ mën du mbe Saaxoo moom nag dañ koo xaaj nag ci xeex ba waaye sëñ Moodu Xari nag dañ koo jam jamitim nag ci xeex ba ñu teewlu nag li ñu ci Cheikh Moussa Ka wax ci daaray maam Cerno jooju nag mu tudde woon fettoo diggante sàmm yi nag ak donga yi nag doon fa xeex lañu xaañ moodu xari ñu jam ko sax yu tàkk pël yi di xare ginnaaw fettoo gi maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru àndoon ak njaboot gi demoon nag ci daaraam yi nañu tuddewoon nag ci nkóol yi la nekkoon ku ñuy wax nag sëriñ Aliou Ndooy ak sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag ñoom ñaar nag lañ bàyyi woon nag daaru moxti ngir nag nag ñu sàmm nag suuf sa fii résidence nag maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru nekk nag ci daaru muxti foofee itam nag la ñu nekkoon wax nañ ne at moom itam nag tar na lool nag ci ñoom ndax lépp luñ xalaat ne daal buñ ko lekkee dund doon nañ ko jëfandikoo ginnaaw nag bu kër gi pare waatee la maam Thierno nag dellusiwaat daaru muxti wéyal nag ànd ak njaboot gi mu wéy topp nag ci ginnaaw maam Thierno di sàmm itam nag ndégalul maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ci 1914 bi ñuy laaj nag soldaar yi war a dem nag guerre mondiale 14 18 bi maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke Mbacke ndaamal daaru bindoon itam nag ci la bokk muy sëriñ Modou Habib Mbacke moom sëriñ Modou Khary Mbacke waaye bi biñ ko bindee nag ba mu war a dem nag ci guerre bi la ñuy wax sëriñ Aliou Ndoye mi nga xam nii nag bi kër gi lakkee moom lañ leen boole woon nag jox kër gi mu nekkoon jëwriñam moo ne nag moom mooy demal nag sëriñ Modou Khary Mbacke mii nag ci guerre bi moom itam nag bi mu waajee nag ba dem Thiès la ko nag benn rakkam joo xam ne ni nag ñoo bokk waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur wu góor muy ku ñuy wax sëriñ Njaga Njaay xamal ko ne yow nag doo dem nag yow nag maa lay demal victime nag ci guerre bi sëriñ Njaga Njaay moom nag moo mujj dem nag ci guerre bi ci turu nag sëriñ Aliou Ndoye ak sëriñ Modou Khary Mbacké bisub keroog sax sëriñ Modou Khary Mbacké nag mi ngi koy xamal ne lu guerre bi tar tar tar ak lu mu metti metti moom nag dana delsiwaat nag ci réew mi te mu ko waxe woon itam nag sëriñ Njaga Njaay mi itam nag noonu itam nag ni la delsiwaatee nag ci réew mi bi mu matee jël soxna nag ñu boole koog nag soxna suñuy wax soxna Anta Njaay Coy mook soxna Anta Njaay Coy nag am nañ nag ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Njóoba Mbacké ak sëriñ Abdul Xuddoos baneen soxna nag bu ñuy wax nag soxna Boussa Wali Diouf muy doomu sëriñ Aline juuf nag làmbaay mook soxna Boussa Wali juuf nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Boussa Mbàkke ñii bi yoraatoon na nag soxna suñuy wax nag soxna Boussa Lo mook soxna Boussa Lo itam nag am nañ nag ak njaboota ñu mën cee nag sëriñ Taala Mbàkke soxna Muslimatu Mbàkke soxna Muminatu Mbàkke soxna Jëbu Mbàkke maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Faati Sekk mook soxna Faati Sekk itam nag am nañ ak njaboota njaboota ñu mën caa ràññee nag soxna Maymunatu Mbàkke soxna Ndaw Mbàkke ak maam Koso Mbàkke di kim fayewaate nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Assu Jóob waaye mook soxna Assu Jóob nag amuñu nag ak njaboota soxna yii nag la dëkkoo woon njaboot yii itam nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot yooyu mu am nag ñoom ñooy ñan doom yi nag di soxna Busa Mbàkke ñiibi sëriñ Mbàkke jam nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mbàkke jam nag am nañ nag ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ Cheikh Mbàkke jam sëriñ Koso Mbàkke jam ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ sëriñ mbàkke jam moom soxna busa mbàkke ñii bi lañ ko jébbal nag ku ñuy wax sëriñ abdu salaam loo doomam jii ñuy wax soxna njóoba mbàkke sëriñ mbàkke jam nag lañ ko jébbaloon ci ginnaaw nag bu fa soxna busa mbàkke ñii bi nag jógee soxna njóoba mbàkke nag mook sëriñ mbàkke jam itam nag am nañ ak njaboota ñu mën ca ràññee soxna faati moor mbàkke sëriñ fàllu mbàkke soxna maymunatu mbàkke sëriñ cheikh awa balla mbàkke soxna maam faati mbàkke doomam jii nag di soxna muslimatu mbàkke bi mu matee dem kër ku wax nag sëriñ maxtaar ñang ba tax na nag mook sëriñ maxtaar ñang nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Moustapha Ñang soxna Daba Ñang sëriñ Alioune Ñang sëriñ Moustapha Diop Ñang ak soxna Mominatu Ñang doomam ji nag di soxna Mominatu Mbàkke ku ñuy wax nag sëriñ Taala Caam nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Taala Caam itam nag am nañ ak njaboota mën cee ràññee nag sëriñ Seexuna Caam Maam Daam Caam sëriñ Fàllu Caam sëriñ Cheikh Caam Cheikh Ibrahima ñu gën koo xam nag ci sëriñ Lamp Caam ak soxna Ndey Caam doom ji nag di soxna Jëbu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Ndaam Sàll moom sëriñ Paate Sàll nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ndaam Dame Sall itam nag am nañu ak njaboot ñu mën caa ràññee nag sëriñ Xaadim Sall sëriñ Moustapha Sall Maam Paate Sall sëriñ Maxtaar Sall soxna Absa Sall soxna Jayla Sall soxna Maymunatu Sall ak soxna Awa Sall doom ji ñuy wax soxna Ndawa bi mu matee dem kër sëriñ Mbàkke moom sëriñ Moodu Joosi nag ca Kaolack nag lañ ko joxoon am nañ benn bant nag muy ku ñuy wax nag soxna Penda Mbàkke moom soxna Ndawa Mbàkke nag bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ Mbàkke moom sëriñ Moodu Joosi Mbàkke nag ci Kaolack lañ ko jébbalaatoon nag ku ñuy wax mook sëriñ maxtaar silla itam nag am nañ benn bant mu ku ñuy wax nag soxna yaasin silla soxna ndawa itam nag ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ maxtaar silla moom sëriñ ma paate silla lañ ko jox nag ku ñuy wax sëriñ kabir njaay moom sëriñ ousmane njaay jolof mook sëriñ kabir njaay nag am nañ nag ak njaboota ñu mën caa ràññee nag soxna bintu njaay sëriñ cheikh njaay soxna saynabu njaay sëriñ bas njaay soxna moominatu njaay ak sëriñ moodu kara njaay geneen njaboot gu jigéen gi nag jotuñoo dem kër laataa ñuy mat dem kër nag lañ génn àdduna njabootam googu buñ fa am mooy lenn tim nag ci sëtti sëriñ bi mu wéy nag des nag daarul moxti wéy tim nag des nag ci ndégalul maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba ni mu mujjee gis maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke daaru mu toppit nag ci ginnaaw njabootug maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba ci atum 1954 mu génn nag àdduna mu nekki nag ku bëgg maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba tax na lépp loo xam ne nii itam nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam nag daana ko jëfandikoo sëriñ moo Moodu Xari nag bu ko gisee loolu itam nag du ko bàyyi itim nag mu dem wax nañ ne maam Thierno itim nag am na benn bis nag mu doon macc déem xoox yooyu nag mu doon yàbbi sëriñ Modou Khary nag da koo jëloon dem nag ji ko nag ci ab tool këram déem googu nag bi ko maam Thierno Ibrahima Faty Mbacké ndaamal daaru yëgee doon na wax ne képp nag kuñ ci sibbee yow mal kenn nag du la lakk ba tax na itim nag bari na ay néew nag yoo xam ni itam nag sibbee nañ leen itim nag ci déem googu sëñ Modou Khary Mbacké nag daanañ ko wooye borom fajartu sahaada mu nekkit ku maam Thierno Ibrahima Faty Mbacké ndaamal daaru bàyyi xel sëriñ Aline Diouf Lambaye mas na jox addi addiye nag maam Thierno Ibrahima Faty boolewaale woon ca doomam nag soxna Bousso Waly Diouf maam Thierno itam nag doon na xamal ne doomu sëriñ Alioune Diouf làmbaay jooju nag képp kum koy jox ku egg nag ci suñu boroom nag ngay doon mag ñu baree baree bari nag doon nañ sàkku itam nag ca maam Thierno nag mu jébbal leen ko waaye sëriñ Modou Khary Mbacke nag la ko maam no nag mujj jébbal day tegtale ne nag kon la maam Thierno waxoon ne nag du ko jox nag kudut nag egg ca suñu borom sëriñ Modou Khary itam nag ku egg itam nag suñu borom la Moussa Ka jagleeloon sëriñ Aline Diouf Lambaye mag ñuy wax ne doomam jooju nag di soxna bu su juufa sëriñ Modou Xare itam nag la ko jébbaloon ñu teewlu nag li ci Cheikh Moussa Ka waxoon boole ca doom ju tudd soxna bu su ko Modou Xari Mbàkke du ko soof ba tey ci digganteem ak maam Thierno Ibrahima Fatim Mbàkke ndaamal daaru moom sëriñ Modou Xari Mbàkke am na bis itam nag maam Thierno itam nag di naan ataaya xool xool mbooloo mi nag gisu ci sëriñ Modou Xari Mbàkke muy xamal nag mag ñi ne képp koo xam ni daal dem nga woy nag sëriñ Modou Xari nag mu ñëw nag naan si itam yowmal xiyaam itam nag da ngeen bokk nag naan ataaya mu nekkin nag ak ku jaxasoog nag njabootug maam Cerno Ibrahima Faati mbakke ndaamal daaru gi rawatina nag magam sëriñ Moor Jëbu Mbàkke jox cër nag gum joxoon cër nag magam sëriñ Moor Jëbu Mbàkke loolu tax na musta nangoo dëkk ak magam nag ngir nag cër nag bu mu ko jox magam itam nag joxoon na ko cër boo xam ne ni itam foo ko natt itam nag weesu na ko faboon na itam nag ab taawam sëriñ Mbàkke jam jébbal ko rakkam nag ngir mu yar ko sëriñ Moodu Xari Mbàkke itam fabaat nag ab taawam tudde sëriñ Moor Jëbu Mbàkke muy sëriñ taala mbàkke nag mi ko njëkk a wóotu kon nag ñoom ñaari tim nag kenn ku ne nag bi nga joxoon sa moroom kenn munu ko woon a natt ndax nag dajee gu ñu dajee nag ci ëttum maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi te sëriñ Moor Jëbu Mbàkke indi fi rakkam nag sëriñ Moodu Xari Mbàkke sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag mi ngi génn àdduna ci feebar nag bu ko tëral ci dëkk boobu mu nekkoon nag di daaru moxti ci bisub talaata fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru tabaski ci atum 1373 nag ci gàddaay gi talaata fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru tabaski ci atum 1373 1913 nag ci gàddaay gi dëppoo gi tam nag muy mardi 17 août 1954 mardi 17 août 1954 Serigne Abdoul Khoudous Mbacke mii doomu maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru moo ko jullee nag ñu jébbal ko boroomam ci wetu magam ja nag Serigne Mor Jëbu Mbacke soo delloo nag ci marché bii ko sëtam way di Serigne Basiiru Mbacke moom Serigne Taala Mbacke moom moo du Xari Mbacke mi ngi ñuy wax nag lu bare bare bare bare nag ci dundug maamam gi taxawaay nag bu maamam taxawu woon ci ron maam Mbàkke ndaamal daaru jébbal nag gu ko sëriñ moor jëbu Mbàkke nag jébbal maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru jàngal itam nag gu ko maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru jàngal liggéey nag bu mu daa def nag ci ron maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru taxawaay bu yaatu nag bu sëriñ Moodu Xari Mbàkke amoon nag ci ginnaaw nag boroom daaru la ñu sëtam bii nag di sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Taala Mbàkke di ñu xamal nag ci ne ca baari bamba dem géej dénk ibrahima la mu am ba mu delsee jant fenkaat na fa baari kañu tànn ka ko tànn fa mu tànnoo fa ñu bannoo dëgg laa ne ma nga baari moor jëbu mbàkkee kirakam mamadu xëri dañu ay sàll yu cer no fa baari te di yu ko sas rëkk ci sang mbàkk mbàkke ko dëxal cer no fa baari madu mbàkke di sangu xeet wa mu tànnoo ku mu tànnal nga di tànneef ceru baari sët la ci maam maharam ak bala aysa famo rango lañi range mbari bari ba mu xàmmee la ko moor jëbu mbàkke rafaatal maam cerno faatima gëm bamba fa bari ñu dëkkoo gon taka xëy cerno di leen yar ñu di xay leer yu janoo mekk fa bari mësta tàggoog daaru ci diirub li mu am fii ci duniya dafa jeex tàkk ca bari mali maslëf ci watiidam wa mu lamboo jëfal cerno ma yor mbir ya dafa daa jiite liggéeyub tool ya bu wér nekk jëwriñ ju dëggal sanci daaru def na xàbbaan ati at yooyu da ko daa bay di ko andil cerno mo yar ña fa baari def na jëwriñ ja ca xàbbaan di fa leeral la sëriñ bamba digal cerno fa baari ba ni sancal cerno daaru def na jëwriñ ja xëy aki gontu ya fa baari fukk ak ñaar ya desoon gor ba fa ahmadu meey ka defoon njiit la fa baari lekk ak naan jafe lool booba ca ba ñu taxoo gor dëkke muñ cay gori bari na at moom mbas dafa dal ña fa daaru ñu toxal dëkk ba taal génn fa baari moodu xareek Aliyu Ndooy ñoo fa desoon di wattul cerno këram leer na fa baari yile jàmbaara gërëm loo yàlla tegam seen mag jooja amoon daaru fa baari na bis cerno tegoon xeewalu zahir di ko xeewloo di ko woolu ma nga baari cerno wax leen ku ko bokk ak moodu xari ngeen bokkaat ko ëllëg aljana baari yile moo jëf ak fayda ca baari ku safoo cerno safoo gor ya fa baari ñi la ñoo des ci li seex bamba joxoon maam cerno ñu xamdu di fa baari am na bis seex abdu xaadir gane si ko woon ba mi dem moodu xëri seere ko baari abdu xaadir mi ma gis xam meewuma kook dañu daa fekk ca njaareem njëkk baari seex abdu xaadir itam seere ci moom wax moodu xëri nit du ko gën mukk baari bala maa gëm nit dina gën mamadu xëri saa dafa teew lii la kee mooy moodu xarim cerno fadaaru rakki maam moor jëbu ñii ñooy sangi baari ba taxawlu ñi le seen mbir dañu ko lam démb lañu woon masuñoo génn fi baari abdu mbàkke maam jadawul te masula wor te masula lor cerno faati ma ca baari na ko yàlla dolli ay leer ak i gaayam barka seex bamba ma di cerno fa baari ay xalifaam nag nii la tëddee sëriñ taala mbàkke moo ko wuutu nag ci atum 1954 ba ci atum 2014 ñaareelu xalifa sëriñ moodu xari mbàkke mooy mooy am caatam nag di kim sàkku woon nag ginnaaw bu feeñee jamono nag ginnaawam ñu tuddee ko nag sëriñam ba nag maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru di sëriñ Koso Mbacke moo fi toog nag ci atum 2014 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu nag ak mbooleem ñu mu séqal nag sëriñ Moodu Xari Mbacke sëriñ Moodu Xari Mbacke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci luñ tuddee ak màggal doom ji nag di sëriñ Taala Mbacke moo jàppoon nag fukki fan ak juróom nag ci weeru korite ñu ciy fàttaliku nag seen waajur wa nag sëriñ Moodu Xari Mbàkke màggal na ko nag ay ati ati at ba ci atum 2007 ci atum 2007 nag la sëtti sëriñ Moodu Xari Mbàkke waxtaan ak seen waajur nag sëriñ Taala Mbàkke di ko xamal ne bis bii nga jagleel nag suñu maam sëriñ Moodu Xari Mbàkke te nag di ci wàcce nag ay kaamil alxuraan dañ koo bëggoon a def nag bisu màggal àndoon na ceeg ñoom nag ñu di ko màggal nag ci atum 2007 nag màggal gi itam nag màggalug bëccëg rek nag la woon wéyal nañ ko nag ba ni mu génnee ci atum 2014 bi sëriñ nag toogee xalifa wéel na ko nag lu tollook ñaari at nag ci bis boobu ginnaaw bi itam nag la ko soppi ci juróom-ñetti fan nag ci weeru korite ñu wéel bis bi nag ci màggalug bëccëg lii nag mooy màggalug sëriñ Moodu Xari Mbàkke ñuy ñaan ca ka magam jébbaloon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba sëtub maam maaram ba ka feeñe woon jamono nag Mbàkke Jolof yàlla nañ ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew nag yàlla na ko suñ borom saafara ci dara mbooleem sëti maam maaram Mbàkke yi amiin maam Maaram Mbàkke